tey jii dama ñëw indi ndimbal ak soutien bu gouvernement bi jëmale ko ci population yi nga xam ne taw bi nangu na seeni kër indil leen ay gàllankoor. di leen masawu te di leen xamal ni ak lu mu metti métti xam leen ne seen gouvernement mu ngi seen wet dinañu taxaw nii ñu taxawee yokkaat taxawaay bi sax ngir ndox yi moom. ci lu gën a gaaw ñu génnee ko ci gox bi suñu ko génnee ba pare it waa santé war nañu def action bu mag muy service national de l'hygiène ngir ñu mën a pomper ba nga xam ne benn feebar du mën a jóge ci ndox yi la ñaareel bi itam dinañu jàppale jàppale bi sax tàmbali na ndax yaakaar naa démb commencé nañu fay liste yi nga xam ne mu ngi jóge sous supervision sous-préfet préfet gouverneur et ci ndigalu gouverneur ak ministre de l'intérieur ak ministre bi nga xam ne moo yor solidarité tàmbali nañu def virement euh, jëmale ko ci njaboot gi mais aussi war leen jox yeneen i ndimbal